uh, that um, the clubs uh, support uh, the managers and um, you know City is out of uh, of Champions League but is out with uh, with two big teams Real Madrid and Dortmund are are good teams very good teams and in this group we knew from the beginning that a big team would be out. And it's good that was City because Roberto can can work without any kind of problem, I believe. Because if it was Real Madrid, I think the press wouldn't let me return to Madrid. <laughs> Mourinho's former club Chelsea have appointed Rafael Benitez as their new manager. He replaces Roberto Di Matteo, who was sacked on Wednesday. The Spaniard, who guided Liverpool to European glory in 2005, was given a short-term deal, which will run until the end of the season. He will be unveiled later on Thursday at a press conference taking place at Stamford Bridge in London. Benitez becomes Chelsea's ninth manager in the last nine years. From sports, we take a quick look at our headlines before we go. The effective functioning of ministries and the attainment of the Vision 2020 have topped the agenda as permanent secretaries gathered in Kanilai for another retreat. The M23 rebels in the east of the Democratic Republic of Congo are demanding direct talks with President Joseph Kabila, this after capturing two major cities. Opponents of the Mauritanian leader have said that Mohamed Ul Abdelaziz is not fit to rule the country, but those backing the once hospitalized head of state staged a spectacular show of a motorcade ahead of his return to Nouakchott and celebrations in Gaza. Hundreds of people have taken to the streets to show their joy with the ceasefire between Palestinian militant groups and Israel. That brings us to this edition of the news. Thank you for watching and join us at 10 for another bulletin. Meanwhile, enjoy the rest of our programs.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 مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون mm-hmm. lewaatu programme yu bëre la buñ leen di isi asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yoonante bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur yi am di jàmm yi dëkkandoor yi ak jamono yi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan seen programme yi Leewtoo balaa ñoo gën a dugg si programme bi faaw ma gërëm Madi Cissé mi nga xam ne moo ma ñëwal lii gërëm kii nga xam ne tam moo ma defaral suma boppa bi ñu xamee leen si Rohi Beauty Salon ki ñoo ooyee Mami Bojang moo ma defaral lii anglin ngi leen di gërëm di leen sant macha allah luñ defar rafet na mbokk yi ba tey di leen fàttali ne seen programme la ngeen di si ànd ak seen doomi ndey Linguère. yaa daan maa daan li bëri na yu bees dekkil jotaan di programme la bu jot biir programme bi ñu fi am gan gu bees. gan goo xam ne du ma ne dafa bees ku ba rek yow da nga ñu ko mbokk yi ñu ngi leen di xamal ne bëre bu mag moo war a am fii si réewi Gambia ñu xamee ko si bëre ECOWAS defoon nañ ko foofu noonu si Sénégal ñu fas yéene koo defaat fii nii si Gambia waaye pour am si lu ñu leer du ñu def dara lu du ànd ki nga xam ne mooy Buur Touré mu wax ñu lu leer lañ. Euh, jërëjëf euh, Linguère euh, jërëjëf mbokk yi ñoo seetaan di sant di gërëm yàlla ki nga xam ne moo waral toogaay bi mm-hmm. di sant tamit yow tamit sa liggéey bu baax bi nga xam ne moom ngaa doxal pour réew mi jëm kanam si wàllu bëri. Euh, kenn ku nekk rek su jàppee foog naa ne dina dem si kanam euh, di gërëm tamit seen kilifa GRTS mm. euh, si taxawaay bi nga xam ne mu ngi koo def si mbiri bëre jiital la si mu nekk lu rafet jërëjëf ñu ngi la naan ndookale ko si li nga xam ne jox neen la ko maanaam bëre bi nga xam ne moo fi am jamono yi si Gambie gis ne ne yow leen jël ama président bi yaa bi jox la ko pour nga jiite ñi nga xam ne ñoo amee wàllum bëre dóor bi naam loolu àndewuñu fi sax waaye pour laaj la lu gàttal naka nga yëg si mbir moomu noonu Euh, jërëjëf euh, liggéey foog naa ne lu am solo la euh, te kóolute mooy tax ñu dënk la maa ngee njëkk a gërëm tamit ñi nga xam ne di leen sant ñi nga xam ne ñu óolu ba di ma ko dénk mhm. di jiital suma président mhm. muy mataat Jaaju Alaaji mataat Jaaju mhm. di ko sant di ko gërëm ak association bi yëpp di wax rek ni comme ni nga ko waxee xëj na bëri dóor bi jàngaleñ ci nekk moo tax nag du du tere ñu jiital li nga xam ne mooy suñu aada mbappaat bi comme ni nga ko waxee xëj na du toogaay yi tey waaye dinañ ci dugg yoon incha allah rabbi bi boree xam ne moo dee am si ay dëkk maanaam ECOWAS dëkk yi nga xam ne ñu fi gis nañ ne last time bi Sénégal la ko gars yi defee woon léegi den bu nga xam ñaata réew ñoo war a ñëw Gambia pour war a teewee loolu nga xam ne mooy boree ECOWAS bi war a am waaw ñetti réew la ak Gambia muy ñeneenti réew mën a ba euh, muy Sénégal suñu dëkkandoor yi mhm. nga am Niger ak Nigeria den mhm. euh, nga am Gambia léegi gambien bi bugg a bugg a um, bu bugg a bokk si bore bore bi war a am fii nii nan la war a yan yoon la war a jaar. waa xam nga léegi ñu ngi sensitise euh, ñu ngi def suñ publicité. Mhm. Euh, am na écrit yu bëri yoo xam ne annonce ñoom registré nañ te commune. Mhm. pour jéem a bokk si lii. Euh, bi ñoo def nii nag dafa nekk ni rek dañoo gën a seetal suñ loxo parce que defoon nañ national championship bu mhm. yàggu. te yooyu amoon na gox yoo xam ne. amuñ ci dara waaye soo ko seetee am na gox yoo xam ne itam am nañ ci dara waaye sori nañ ñoom ñëpp dañ leen oyaat mm. ñu ñëw bokk si lii mu nekk loo xam ne li ñoo tànn this time daf ñoo óor nañu tànn nañ tànnaat soo xëj na dañoo wax sa ne professionnels la ñoo ut léegi su ko defee suñ tànnee ñu am na beneen bëre buñ leen a jàngal mm. boo xam ne moom la ECOWAS bi di laaj ok waaw bëre boobu neen ah, bëre boobu bu ngeen war a jàngal gaay fan la war a dooree fan la war a staatee waaw fi moo starté mooy euh, ci dooreen bi comme li ma la wax ajuma mhm. euh, si boppam si lañoo def PC mooy wéebi fi nga xam ne foofu la ñoo PC poids mbër bi mhm. Serekunda West mhm.